ñu xañ la ko donc li nga wax ci caisse noire bi ne danga nga yor ay rapport man loolu jaaxal na ma te yaa ngi koy wax naan bu ñu ma woo nag te question de de de nga laal li nga wax nii yow leer na la wóor yàlla ni tegoo ko fenn du amul amul ci benn wéeruwaay boo ko teg parce que caisse noire amul rapport caisse noire bi ñu jagleel président de la république yoon jox ko ko amul yow foo mën a jaar ba ne rab wax ñu ko mais tu nous donnes les détails jox ñu détails yi nee ñu lii la ak lii ak lii ak lii donc ëllëg lu ci mënti amit yow a lu ci mënti amit mooy bëgg ngaa bokk ci course course bi politiquement buggaan lu ci mënti amit bëgg ngaa bokk rek ci politique bi ba mu jaral la nga wax loo xam ne yow leer na la lii mënoo koo prouver ba mu jaral la nga wax loo xam ne lii leer na la wóor yàlla ne dara leeru la ci li ngay wax man nag foofu laa la waxee ne la juum nga question amul rapport te boo ko weddee demal nga laaj Idrissa Seck xam naa yéen ñaa war ngeen a nekk xarit ndax en 2019 yaa ko fi gëmoon ba jël ay politiciens yóbbul ko kon demal nga laaj ko soo ko laajoon doo wax ni dangaa yor rapport caisse noire te boo bëggee lu leer sénégalais rek man coro man maa lay défier ne la génneel les détails information day day wóor day wér te wóor man loolu laa gëm amul dara lu ñuy wax di ko cof dangaa yor information génne ko na lépp tasaaroo ñu xool ba xam donc ba tey jii ci Bougane bu ñu jógee ci caisse noire bi bi nga xam ne top secret la top secret la président de la république moo la mën a wax ni ci ne top secret la amul rapport bu ko mën a génne nag caisse noire bi lii ak lii ak lii mënul nekk kon xam nga lan lan maanaam en tant que citoyen en tant que xëy na politicien nga wax yow politicien nga bu bëgg Sénégal waroo woon a désinformer di ko jaarale foofu ci caisse noire bi non non non non non là je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec toi mon frère donc euh, ñu ñëw ci 4 hectares yi nga xam ne tamit junj na ko ci conférence de presse bi mu doon def 4 hectares yi nga xam ne junj nga ko ci 4 hectares yi nga xam ne moom nga wax ne moom la président Bassirou Diomaye Faye am loolu yàgg na ba di ci bay mais yow 4 hectares ci wàllu agri maanaam ci wàllum bay loolu 4 hectares du dara ci wàllum bay 4 hectares du dara dara dara dara yow man yàggul dara dara man gis naa koo xam ne du dara ci réew mi dafa jóge Europe liggéey xaalisam rek ñëw doon doon doon doon xool 12 hectares yu mu bayee waxuma laa nag nga may wax le président Bassirou Diomaye fay nga koy tudd tudd ay 4 hectares 4 hectares pour bay du dara non désinformation la désinformation la 4 hectares du dara pour bay du dara bu fekkente na dangaa bëgg a langaamu ci euh, ci euh, euh, rapport yi ñuy wax hectares yi ñuy wax moom la nguur gi fi jóge sédd séddoo bëgg ngaa bokk ci mouvance bi nga xam ne ñoom ñooy wax ci mbirum suuf ak yooyu yooyu

bi mu defee ak moom euh, interview ak Walfadjri boobu ji defaguñ ko président wax na ko donc loolu booy na ci noppi sénégalais yi loolu dootul information ba nit di ci jaar pour désinformer non non non non foofu moom doo ko réussir parce que sénégalais jàll nañ ci leneen xam na lañu wax ñi sàcc suufu Sénégal lañu wax képp ku sàcc suufu Sénégal nag. yaakaar ne bu ñu la tuddee après dinga am yow guuta goo dugg nga ne naa njëkkantu sénégalais yi ci wax leen ci quatre hectares yu président am ak yeneen juum nga dangaa juum ci côté boobu beneen bi mooy ci ay ci conférence de presse am moom Bougane gëy dale ci li mu wax ne actionnaire la ci fal gi ñu fal le président basiru Diomaye fay moo ko wax nee actionnaire la ci fal gi ñu fal le président Bassirou Diomaye fay mais paradoxe la def Bougane dafa wax weddi boppam Bougane moom moo ne bi ñuy waaj élection yi moom mu doon waajal deuxième tour yi ne deuxième tour forcément lecture boobu la def moom en tant que politicien deuxième tour day am muy waajal deuxième tour yi ci la profité daan nekkat ñi nga xam ne ñoom ñooy waa gëm sa bopp di mouvement bi mu jiite ne leen def leen seen choix yéen a xam def leen seen choix voté leen ku leen neex mais yow ba nga xamee ni actionnaire nga ci li indi Bassirou Diomaye Diakhar fay ci bopp réew mi ba nga xamee ne actionnaire nga ci boobu dangaa waroon a génn ne premier tour lay xaar wala wa nga waroon a génn ne ah man kat ñii laa gis mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko seen àndandoo bi kat ci ci ci kanam la jëm présidence de la république la ñuy la la ñuy jëli ci nga ànd ak ñoom ca booba mais da nga contredire sa bopp nag fi nga waxee ni xam nga ni xaw ma protocole de de lan nga ko tuddee parce que Bougane dafa am ay wax yoo xam ne moom rek moo koy xam protocole de xaw ma bàyyi nan yow paradoxe nga def foofu danga nga juum mon frère da nga juum paradoxe nga def parce yow naka nga mën a nekkee actionnaire ci falu le président Bassirou Diomaye Faye ba pare nga ne xamoon nga ni protocole ndax cee amoon maanaam dañu signé ak Macky Sall <laughs> ma lay laaj yow naka nga mën a nekkee actionnaire parce que ci même wax ji ci même même même conférence de presse bi ci nga wax ci nga juum ndax juum laa ko mën a jàppe ak bëgg a bokk ci ci ci ci ci ci ñiy làbbali fas wi ci politique mais du noonu du nii c'est pas comme ça mon frère da juum da juum sa sa conférence de presse li ma doon wax ni euh, euh, man bu doon politique la man ma lay digal man dama naan la bul génn tey bul génn fan yi mais gaaf yii laa doon xalaat yu mel nii nga laa doon xalaat parce que ci biir wax ji ci nga wax contre contredire sa bopp comment yow mën nekkee actionnaire ci falu le président Bassirou Diomaye fay nan nga ci mën a nekkee actionnaire ba pare xamoon ci protocole bu ñu signé ñoom ñaar bu ñu signé entre le président Bassirou Diomaye fay le premier ministre Ousmane Sonko ak la l'ancien président kii euh, euh, Macky Sall donc yow bi ngay nekk actionnaire li nga doon bañ moom nga bëggoon yow bi ngay nekk actionnaire nga ni bokk ci ñi ci ñi indi Bassirou Diomaye Faye ci bopp réew mi boobu yëgoon nga protocole bi quoi mais da ko sëgg tu tu te contredis mon yaa ngi wax mais weddi nga sa bopp ci biir wax ji donc man de question la yu ma lay poser man su ma fa nekkoon parce que euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye démb dafa janoo ak taskatu xibaar yi en tant que président de la République te moom tey moom moo waroon a ragal ngir janoo ak taskatu xibaar yi parce que Sénégal fi mu jóge ak fi mu toll tey ku ñemee dañ laa déey te président Bassirou Diomaye Faye bu demee ba centième jour am téeméeri fanam mu janoo ci ak la presse sénégalaise ça veut dire que gëdd boobu ak xeltu googu loolu dimension boobu mu am benn président mosu ko fee am loolu xëy na ku bëgg doxal la ku bëgg a jóge ci point A dal ci point Z la donc kooku du ragal bu ragaloon li mu def noonu tal fatar ay ni du ko ci def mais yow tam boo ñeme woon ñeme réponse yi ñeme question yi da ngay bàyyi les ñu poser la des questions au lieu de point de presse nga def sa conférence de presse parce que y avait euh, des questions yu yoo xam ne yow waroon nga may presse bi ñu gaaw la cee laaj bien sûr parce que su ma fa nekkoon man nga tudd ne actionnaire nga ci li fal Bassirou Diomaye Diakhar fay ci bopp réew mi waaye kat yow nga ne actionnaire nga ci nangul nga ko sa bopp ba pare nga ne protocole bu ñu signé am na fa protocole da xaw ma bàyyi bàyyi xaw ma nan nga ko tuddee man mënuma ko jàpp parce que moo yooyu yaa koy xam comme turu dëkk yi buggaan di tudd des fois ma tooñaale ko donc da nga juum paradoxe nga def da nga juum man nag li may wax ci ku jégi mooy askanu Sénégal soxlawuñu ma riirandoo ma profité ci loolu ku askanu Sénégal soxlawuñu ma riirandoo soxlawuñu pëccëxoo soxlawuñu réeroo soxlawuñu désinformation askanu senegaal dañoo daw ba xoox ngir egsi fi ñu egsi tey askanu Sénégal xam nga lan la soxla jamono ji ku leen dalal jox leen potu ndox bu sedd ne leen toog leen xaar li ngeen ki ngeen di seet fi ñu jógee dafa sori donc soxlawuñu koo xam ne dangay làbbaliwaat fas wi ne leen nañ daw mënatuñoo daw dañuy dañoo am are dañuy taxaw dañuy taxaw dañoo am arrêt mooy li ma doon wax bërki démb mënuñu fee nekk man ma jël ko ci sama bopp man sama exemple pendant sept années wala plus de sept années parce que ba ma duggee ci presse ak léegi ëpp na sept ans ba ma nekkee wal fajiri ak léegi ren mooy sama septième année bañ ma xamee ba tey jii sama premier jour ci wal fajiri la ma nit ñi doon wax tu es contre pouvoir te boobu Macky Sall am na fi presque quatre ans ou cinq ans man ma gis ne doxalin bi baaxul ma ñëw man jël sama cëggal guy toog commencé défendre la population sénégalaise ci sama première émission première émission bi ma njëkk def mën naa koo génne ndax YouTube la mi ngi ca ri ba ma génne dañ ma dox tu es contre le gouvernement tu es contre gouvernement ñu commencé di ma ko étiqueté ba ba étiquette boobu mu takkal ma ko parce que damaa gis ne président Macky sàll depuis le début ni mu ni mu jëlee réew mi ak fi mu ko doon jëme ak fi ko doon yóbbu baaxul donc ñun mënuñu nag pendant sept ans huit ans ñu dox daw ba xoox topp ci Macky Sall dawa dawa daw laaj sunu démocratie laaj sunu ay gëdd joytu sunu ñàkk joytu sunu sunu xiif joytu suñu mar joytu sunu ñàkk faju joytu suñu njàngum doom yi joytu suñu doom yi de dee ci géej gi joytu suñu ñi ñu rey ci ay manifestation ak yeneen ak yeneen ñu ñëw ba fii jël ay nit fal leen ci bopp réew mi yónni leen yàkkamti leen toog leen di leen xaar des politiciens de mauvaise fois ñëw di ñu tànkal ak wax diñu tànkal ak des diñu tànkal ak ay wax yu amul bopp amul genn diñu tànkal ak wax yoo xam ne benn corom mi gën a tuuti mooy toog di ko décortiquer di la wax ne du dëgg donc yéen politiciens yi wala yéen ñi bëgg a ne yee yaay ku jëkk politique ngeen jëlaat leen élan élan bi ngeen jël baaxul bàyyi leen ba ci kanam dafa teel instant bii teel na te dama ne ñii fi ñu jëm boo leen maytul dinañu gas kàmb dugal leen ci yéen fi ngeen di jaaree dee ba faw te maa ko wax fii nañ leen dem waxoon nañu ak Macky Sall duñu xut bu samaan duñu dara xamuñu dara dañuy jàng ba léegi nii te dañuy wéy di jàng mais Macky Sall lañ ko doon wax daaw ak daaw jéeg su ko déggoon du egsi fii ci gàcce lañu ko doon wax daaw ak daaw jéeg su ko déggoon du egsi fii ci toroxal réew mi du ko déglu ci egsi fii ci toroxal ñu ci musibaal ñu du ci egsi parce que ñun ñoo nekkoon mbokkam ñun ñu ko doon artu kon képp ku ñuy artu jàppal ne ñun ñooy sa mbokk duñ la saaga duñ la dóor duñ la xas duñ la wax dara lu metti mais dinañ jàkkaarloog yow ci des questions yu essentielles bu ñu baat ak tontu ni ma koy waxee tous les jours donc yéen waay politique gi jëlaat leen seen élan ngir yàlla lillahi wa rasuli sénégalais yi talu ñu fi ne nii ku leen labbali waatal fas bi ñuy dawati gën a xoox ku leen di désinformer ku leen di non non talatuñ ko nañu am xippee xool pour l'instant ci la gouvernement actuel ñu xam fan la ñu jëm ak fan ñu jëm maane leen fii laa koy waxee waat opposition dina am opposition dina am ndax ci dëkkub démocratie la ñu nekk te faw opposition am faw ay waxkat yu mel ni coro am pour Sénégal mën a tegu ci raay bi ndax ñi ñu jiitam ay nit képp lañu mais nag opposition bi ñi koy incarné ci doomu Sénégal yi lay doonaat ñi incarné opposition bi ci révolution bi la ñuy jóge ñiy incarné opposition bi du nekk ñu ragal ñiy incarné opposition bi dinañu nekk ñoo xam ne xam nañu des question essentielles ci wàllu politique ñu koy posé xam nañu liñ soxal askan wi ñu ci ne kon gaawtu gi jaru ko gaawtu gi jaru ko nañu def ndànk te jël sunu temps nañu def ndànk te jël sunu temps te xam ni suñu demee ba ci kanam lépp incha allahu rabbi dina leer te kenn du désinformé kenn kenn du du du wax kenn ci loo xam ne nii lu koy tardeel la wala kenn di mën kenn ci lu koy tardeel wala jëme ko ci lu koy tardeel te sénégalais fi mu nekk nii yéen li ngeen di wax yéen waaye politique yi sénégalais ñoo leen ko gën a xam nee naa leen képp ko amul dayoo ci révolution bi fi mu toll ci fi Ousmane Sonko jëlee révolution bi ak fi ko indi képp ku ci amul dayoo dangay jël ndaare képp ku fi nekk ci l'opposition bi ci kujje gi te nekkoo vrai révolutionnaire mënoo am dara parce que révolution fi nekk nii mooy yor réew mi révolution mooy taxawal kujje politique révolution ci la ñu fas yéenee jëm ci kaw loolu nag euh, euh, maa ngi jël directement euh, le grand journaliste